groupe bii di faj Walfadjri tëj nañ ko loolu mu ngi am ginnaaw bi président de la république annoncé report élection présidentielle yi kii di ministre bu géré wàllum communication jël ndogal retire seeni licence kuréel bii di CAP coordination des associations de presse di ko ñaawlu si seeni ndaje taxawal nañ benn plan d'action ci biir plan d'action bi dina am journée sans presse boo xam ne ne ñu ngi ko war a def mardi vendredi bii di ñëw dañ a ñëw et dinañ bind aussi bataaxal président de la république def lu ñuy wax éditorial commun jeudi et aussi it def rencontre avec les patrons de presse et am na aussi benn activité bu am solo veillée nocturne boobu ñu ngi koy def ci buntu Walfadjri association bii di CAP di ñaawlu doxalinu ministre bii di Moussa Bocar Thiam dañoo jàpp ni doxalinam dëppoowul ak li yoon wax parce que balaa ngay dindi licence jàmbur am na ay pàcc yu ko jiitu yoo xam ci ne waroon naka def comme ay avertissement comme euh, ay euh, mise en demeure ak euh, suspension du signal et surtout mu joxe notification lu jiitu d'abord. alterné si suba la coupé lii di internet mobile. coupure boobu am ay jeexital si koom-koomu média yi. dinañu def lépp lu ci war fexe ba nga xam ci ne gouvernement bi day jël engagement. bu dootul coupéti internet boobu bi ci Sénégal ndax sooxe yi muy andi ci dëkk bi mais aussi ci milieu presse bi. association bi di bépp journaliste ak kuy yëngu ci média ñu taxaw ba li ni mel bañ a amaat.